fële ci bori euh, Touba dëkk bu sel bu tedd boobee nga xamni tay mom mo dalal ki di président de la république ngeen gis ko noonu son excellence euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi mu waxtaanee ak président de la république mu dem nak ci jumaa ju mag yi ngir euh, ziar mu yebal ko mu ziar ji ku tedd ki di Serigne Touba Khadimou rasoul mu ànd ba tey ci ziar boobu ak porte parole xalif général des Mourides di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mon président de la république tey ci ngoon bi muy ñëw foofu ci Touba mi ngi ànd ak délégation bu mag a mag bokk na ci ministre de l'intérieur ministre bi yor wàllu dem bi ak tikk bi ak ay député yu bare jëwriñ yu bare bare ñoom ñëpp ñu ñëw gunge ko ngir nag mu ñëw ziar si ki nga xam ne moo général des Mourides mon président de la république Gisco nonu, ko juma, ci juma ju modi, grande mosquée de Touba bi nga pour ziare si xaadimu rasul migandit, délégation bi nga modi, ni Serigne Touba ci porte parole Khalif général des Mourides ngeen Gisco Nonou, ci biir waxtaan bi nga xam résidence. bu xalif général des Mourides Daaru Maxnaan moom président de la république yëkkati na fa ay kaddu ci kanam tuuti di ngeen ko mën a dégg lanaaw loolu it porte parole wax na ci turu xalif général des murit lool it di ngeen ko mën a dégg ci sunu ëttu xibaar yi fi mu nekk nii kon ngeen gis ko noonu ci biir euh, jumaa ji mu ñëw nag ngir ziyaare si xaadim rasul waaye it njabootu Serigne Touba gis ngeen ñi nga xam ni ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllug euh, jumaa ji yor sécurité bi karange gi son excellence président de la république di leen ziar di saafonte ak ñoom ci fi nga xam nonu kon moo di biir euh, jumaa ji euh, ngi di ziar yi ak délégation bi nga xam la Andal, Mom président de la république mu yegsee Fofu ci Touba it biñ ko dalalee wax na ci lu jëm ci wàllu mi ci lu jëm ci assainissement bi loole lépp nekk ay projet ak i bëgg-bëgg yoo xam ne bëgg na ci indi ay saafara ca nu mu gën a gaawee ànd ci ak nga xam ne ñoo di gouvernement yu mu jiite ànd ci it ak premier ministre ak gouvernement am moom sàkku na it ay ñaan yu bare bare ci ki nga xam ni moo di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñaanal réew mi ñaanal nguur gi ñaanal it président de la république bi nga xam ne moom la doon ci lépp loo xam ni nekk na ay projet ak i bëgg-bëgg yoo xam ni bëgg na fa yóbbu réewu Sénégal ginaaw bi nga xamee ni ay weer a ngi nii bi mu toggee ci xilaafa gi ci bopp réewu Sénégal mi ngi noonu de la République ba léegi ci biir ziar bi ci jumaa ji muy amal nag ziaram moom ci boppam ak ñi nga xamee ni ñoom la àndal ci délégation bi nga xam ni ràññe nañ ci gouverneur de région di gouverneur bu Diourbel ànd na ba ak préfet bu Djourbel ak euh, sous-préfet bu nga xamee ni moom moo nekk foofu ca communauté rurale bi nga xamné mo wër Touba waye it bokk na ci ay chef de service yu région bu Diourbel ak tay chef de service yi nga xamné ñi ngi ci département ba ñom ñep ñëw gunge si ko rawatina it ay kilifa diine yo xam ay njabootu sëñ Touba ak ñi nga xamné kon ñom ñoy kilifa yi nek fofu ci Touba ak li ko wër président de la république gis ngeen ko noonu muy euh, ziar kon ci mausolée bu xaadimu rasoul mon président de la république di ñaan ngir réew ngir euh, njabot gi ngir nak lépp lo xamni nek na ay projet yi té ay mbébét la yi nga xamni ni bëgg na def ci réew ci mandat bi nga xamni bimu ko tambalé ko ak légui yagul di fatali ne bi moy ñetteeli yoon mon président de la république bimu mu ak légui mu teew ci fii nga xam di Touba xam ngeen jamono yele amoon na fi bëccëg bi ñu tuddee journée de l'arbre muy bëccëg bi nga xam dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu jëmbët garab moom président de la république taamu won ñu defee ko foofu nga xam di Touba amon na it euh, bëccëguk euh, setal sunu réew mo jitu woon sax boobu it moom président de la république tamu ñu amale ko ci fi nga xam ni moom di Touba waa Touba ci digeluk xalif bi nangul ko ko rafetlu ko bu baax a baax gunge ko ci ñaari bis yi mu di mbaalu set setal ak li nga xam ni mu di jëmbatum uh, garab laata loolu it président de la république bi mu folo ñëwoon na nuyu si ziar si kilifaam di papaam di maamam di xalif général di murit buñ ko boolee kon ak tukki bi nga xam ni moo di bu tey bii nekk ci biir weeru safar bi nekk it ci biir wàccaayuk màggal gi mu nekk ñetteelu tukki boo xam ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jagleel ko dëkk bi nga xam ne amin ya rabal jagleel na ko dëkk bi nga xam ne kon moom moo di euh, Touba ngeen euh, gis ko noonu ci ñaan gi nga xam ni mi ngi koy euh, ñaan jàkkaarloo ak Serigne Touba jàkkaarloo ko borom bi di ñaan ci dëkk bi nga xam ni moo di Sénégal ci yan bi nga xam ni yan nañ ko ko di ko ñaanal moom Serigne bi ñaan ngir rek yan bi gën a oyof lépp li nga xam ne mbëbët na ko it mu nekk loo xam ni daan ko mën a jot ci jàmm ak salaam rawatina it jàmm ji nga xam ni bëgg na mu sax dàkk ndax nag jàmm su amulee dara du mën a am rawatina réew mu mel ni Sénégal suy sumb ay programme yu mel ni jëm ci pétrole yu mel ni jëm ci gaz doole lépp laaj laaj ay ñaan waaye it laaj ay ñaan yoo xam ne it dina mën a boole nit ñi

ziar bi muy amal fii ci grande mosquée bu Touba grande mosquée nag xam ngeen kenn du leen fàttali histoire am ndax nekk na jumaa joo xam ne daanaka xalif yëpp yi fi jaar ku ci nekk jot na ci dugal loxoom ci wàllu taaru ci wàllu yaatuwaay ci wàllu lépp lu nga xam ne nekk na ci organisation ci wàllu sécurité ci wàllu sonorisation lépp rek ngir mën a dalal julit yi nga xam ne at mu ne ay junni junni la ñuy doon di ñëw fii ci Touba. naka daaw ay xayma yu leer wane ne mi million ci ay taalibe ak lu topp dugg nañu fii nga xam ni moom moo di suuba lépp rek ci li nga xam ni moo di màggal gi lépp rek ci barke Serigne Touba loolu it nekk loo xam ne Sénégal du koy ndamoo ndax nag sunu diine ji nekk na loo xam ne it nekk na lu bari ay avancement ak loo xam ne yokkute rek lay doon ci wàllug li nga xam ne moom moo di sunu koom ndax bu ñu wax màggal gi it defe naa ni koom gi moom kenn du ko ci fàtte ndax ñu ci bare daan ci mën a daan seen doole yóbbu seen i kër waaye ñu bare daan ci mën a suturlu bu baax a baax ndax ci wàllu jënd bi ak njaay mi rek wax nañu ne lu ci bare ci ay millions ci ay milliards sax dina fa dugg ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk xayma nañ ko moom agence nationale bii nga xam ne moo di ANSD di wax ni ci at yu mujj yi dugg na ci yi màggal gi ci fi nga xam ni moom moo di Touba loolee lépp rek di li nga xam ne kon ci màggal gi nekk na ay ngëneel yoo xam ni jar na ñaan ngeen gis nag président de la république ak euh, délégation am di wéyal li nga xam ni moom moo di ziar bi ziar bi nag euh, ñu koy ziare xaadimu rasul sëñ Touba waaye it njabootu sëñ Touba bi nga xam ne ñu ngi fii ci jumaa ji mu nekk nag loo xamee ni saa su nekk suñuy dëgmal li di màggalu Touba bi moom président de la république su ñëwee fii dina ci mën a profito daal di ziare ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi ñaanal ñëpp ñi nga xamee ni itam ñoo nekk fii ci Afrique ndax nag aussi mën nañ jàpp ne lii di Touba di béréb bu tedd bi donte ni waa Sénégal ñi ngi ciy profito waaye it yeneen i réew dañuy ñëw ba fii di ñëw di ci profito jamonoy màggal gi ni nit ñi di jóge fii ci réew bi waaye di jege ba bitim réew ci jaspora bi ñëpp ngir mën a ñëw dadi profito profité ci jamonoy magal gi ziaré nak fii nga xamné modi moo di ju mag gi ci Touba moom président de la république mi ngi wéyal ziaram gis ngeen mi ngi ànd ak porte parole xalif général des Mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr mi ngi ànd ba tey ak ay responsable yo nga xamné ñi fi ci Touba di ay député amna ci ñoo xamné ay responsable parti bi di Pastef lañu

ànd ak moom ci li nga xam ne moo di ziar bi nga xam ne ndigal la bu mu leen di jox di ko faral di joxe nag saa su nekk su gan ñëwee yenn saa yi sax balaa nga koy balaa ngay waxtaan ak moom boo ko nuyoo see rek da lay digal ni la demal dugg ca béréb bu tedd ba ziar ba pare doogu dellu si ñu doogay tàmbali waxtaan wi mu ngi noonu Serigne Bass Abdou Khadre di présenté président de la République kilifa yi nga xam ni it ñoom ñoo yor jumaa ji di ko toppatoo guddi ak bëccëg ñu nekk ci di fexe mu set mu sell mu jekk mu taaru ba ku mën a ñëw ci jumaa ji fekk ko mu nekk ci anam yi nga xamee ni noonu la gënee loolu it ñu ciy bu baax daayira yi ak euh, comité yi nga it yor lu jëm ci rasul nyengi ngi ñaan rek ci barke Sëriñ ci barke suñu borom bi yàlla nangu ñaan yëpp yi nga xam ni ñu ngi koy ñaan fii ci jumaa ji di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal yépp ki nga xam ni doomu Sénégal nga di fàttali it ne nekk na jamono joo xamee ne ñu ngi ci weeru safar bi muy ci Touba ak fépp fu mu mënti doon ci réew mi jamono yi ñu ngi koy dund bu baax a baax weeru safar